liggéey bu baax a baax teewaayu toute la presse nationale et internationale lii du meeting lii point de presse ñëw pour fësal suñu coalition ak tamit fësal suñu yéene ci Sénégal ak ci ëllëgu Sénégal ngeen may ma nag balaa may tàmbali waxtaan bi ci turu coalition moom Samba sa kàddu te yàlla def ma nekk ci tête de liste nationale ngeen may te sargal suñu kilifa yi di Serigne Moustapha Sy di Pur ak Khalifa Ababacar Sall di taxaw Sénégal leen di gërëm di leen ci opportunité bu ñu may tey jeunesse sénégalaise mën taxaw mën waxal askanam te mën doxal askanam ndax Sénégal ma jëm kanam maa ngi dégg léegi nii suma xarit di Assane Diouf di wax ci Dakar ma bëggoon dalal xelam Assane Dakar Dakar dëkku ndaanaan la. Assane damay dalal sa xel. Dakar bu ko fi dégg benn sàcckat te sàcc lu fi bonde. Assane may sa xel. Assane ñun suñu demee ba tànn tête de liste département de Dakar honorable député maire Babacar Mbaye toppal ci ay góor ak ay te ñoom ñëpp seen loxo yi set parce que ñun Dakar kese képp rek doom la ñu am Babacar Mbengue su ngeen laajee Babacar Mbengue fan la jógee dinañ leen wax Babacar Mbengue en délai lay bàyyee su ngeen laajee Louga Diène fan la jógee ne leen Medina la bàyyeekoo mooy suñu arrangé su ngeen laajee honorable député maire Jean Baptiste Diouf fan la jógee ñu ne leen Grand Dakar la bàyyeekoo ku li jum wante fii dama ne golo du bay baaxul di ko dundee boobu bi Dakar du fi am ñu fi toog tey ne dañu soxla Dakar mënuñ leen wax ci ban gox dañuy bàyyee boobu Dakar am nañu base te tekkiwuñu dara de Dakar bu ñu fi tekk dara kon nag ñu koy def fi tekki dara may seen xeetu dóor manto yi te wax askan wi fan la ñu xaalis yi xaalis bi dañu war a xam fan lañ ko dugal dama ne di dalal seen xel yi Dakar du fi jox benn xeetu immunité parlementaire benn xeetu sàcc ndax mu mën a làqatu pour refuser de répondre à la justice sénégalaise fumée sans feu dama ne Sénégal duñ fi fenn dañuy yokk rek wante fenn amu fi te di ngeen yàq xaalis bi di ngeen wax fu ngeen dugal xaalis loolu muy dëgg te suñ ci eggee ci campagne bi ñoom suñ leen waxulee fu ñu dugal xaalis yi dinañ leen woon fan la ñu dugal xaalis yi parce que wax ci mooy lan ñoom dañu rey lan ne suñu demee tey ba ne pat parce que xam nañu baax am na ay xeetu ñaawte munoo fi def te àndoo ak ay kilifa yu mag moo tax autour justice boobu am solo te wax nañ ko naam dinañ topp sàcc yi wante sàcc yi démb ak moo tax autour justice bi moom fu ñu fa teg seen tànk foofu mooy bu baax dañ fa teg dañ fa dëgal tànk yi mbokk yi coalition lu tax ñu wooye ko sàmm sa kàddu baal parce que kàddu dafa am solo ci suñu cosaan ci suñu aada lu tax ñu yokk ci baal wooye ko valeur pour alternative responsable mooy campagne bi bëgguñu xuloo kenn bëgguñu xeex kenn bëgguñu teesante ak kenn jaru ñu bëgg daal ngeen di gëstu baar ngeen di partagé baar yi ngeen di saytu baar ngeen di bokk ak mbokk yi baar yi parce que nag bii ndeysaan ma nekkoon bitim réew ñu woo ma ne ma Cheikh Yérim Seck di taskatu xibaar dañ ko woo fële ci police ñu ne ma bu gàngee dañuy woo nañ ko ci police man leen lu tax ñu woo leen ci police dina ñoom daal ci gàtt dañuy jàpp sàcc ngeen jëlee mu ci kàddu yi dañuy jàpp fenkat maa ngi jëlul fenkat laa doon wax dañuy jàpp fenkat wante maslaa am na solo wante ngay maslaa ba ñu leen maasaalee loolu moom xajul tubaab nee na tubaab nee na képp ku dul wax dëgg nee na yow mii moom da lay woy menteur may am ma moom la ñuy woy fenkat tubaab nee na képp ku mënul tubaab nee na képp kuy dóor kàddu mango nee na moom da lay wooyee manipulateur mooy kan du loolu tubaab nag nee na képp ku tële da lay wooyee incapable mooy kii moo tax mbir boobu way yi ma bëggoon wax ak yéen ci mbir parce que mbir campagne bi dina xumbat dara danaa leen fenn du di jaaw fenn du di jaaw fenn nañu ba jot ci réew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 républicain ñoom ñoo fi waxoon suñ fi faloo dinañ fi jëlee lu ñuy woowee ay fonds politique pour ci tool pour sàmm sa kàddu da ngay fen moom la bu baax di woowee te loolu mooy dëgg waxoon leen su leen joxee réew mi ci ñaari weer ñu soppi réew mi lan mooy kon nag moom laa leen doon wax ay incompétent la ñoom ñu leen di waxoon suñ jotee ci réew mi soxlawul ñu am période de grâce la pay soppeeku du noonu waaw loolu su nekk la ay xeetu góornaanto tubaab di ko woowee manipulation mooy lan du ñoom ñoo fi digoon ndaw ñi leen suñu faloo mbëkk gaal yi day dàkk ña koy lu mu bon bon bon ku ci nekk dina am cent cinquante mille francs weer waaw loolu gis ngeen seen bopp waaw mooy kële moom la tubaab di mooy incapable moo tax lii di fulla ak fayda mooy mimi boobu mimi booy mimi foog ñu xamal ko ne que dëgg bi ay golom ñu fi yeewu te maa ngi jëloon ci kàddu yi parce que moom mimi dafa yelal dafa ne dafa. ñaawlu ba ñaawlu système moo tax man na leen minité bàyyi xel ci fi may waxee nii nee na day ñaawlu système bi wante moom ci copitaanu système la juddoo moom dama ne système a ko yar ba mu ba mu toll ni toll ni daanaka mu juddoo ci copitaanu système système boobu waaye wóor doon liggéey moo tax mu mënoon lekk nii euh, gis ngeen dëkk bi dafa am ay nit ñu wut liggéey moom mii université si université ci université système la dem moom muy doon ñaawu système bi di ñaax ci système moom ci université système bi la demee moom mii bokk na ci xeetu Sénégal yi ba ñu génnee université dañuy def ENA ENA daanaka soo fa eggee sax da ngay doon étudiant wante.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 système rek jox suuf bu ñu mën a am kër kon moo tax ma ne leen ñooñu dañu dóor a dóor a dóor a dóor fenal fenal fenal fenal fenn ba jot ci réew wante nag maintenant ils sont face à la réalité mooy maintenant dañu war a gérer gérer boobu nag wane nañu seen bopp ku leen jox ndekki su leen diggee añ nga mën ko gëm wante ku la joxul ndekki joxu la añ xel soo ko gëmee da ngay fooyee sa xel moo tax ci campagne bii ñoom lu ñu doon woote ak fu ñu doon teg seen tànk dañu fas yéene wan askan bi que lépp ak dara te Sénégal dafa am fu mu toll ci métit que ñoom bu ñu bëgg a def mooy bëgg a continuer di nax askan bi balaa may tey ñu woote deux mille cinquante dañuy foyee seen xel bi deux mille cinquante amaana ñu bëri yu nekk ci salle bi peut-être ils ne seront même plus en vie balaa ngay wax waxu deux mille cinquante ñoom ñu nag ñu wax suñu tey ak suñu ëllëg moo tax ñu fal yow yaa ñu waxoon soo soo demee ba jot ci réew mi ñaari weer nga soppi réew juróom-benn weer yi nii daanaka juróom-ñaari weer yi nii dëkk bi dañuy gën moo tax ñu sàkku ci mbokk yi fépp ñu mun ci nekk dañu xoolaat Sénégal ku nekk xool lu ko Sénégal jaral du ay question de par parloo du ay question de far du ay question de militantisme question de citoyen ak question de citoyenneté parce que Sénégal. mënuñu nangu fu mu toll tey ay nit continuer di continuer di bëgg a gëlëmal nit ñi di bëgg a nax nit ñi ndax lan ndax nguur ak bëgg a nguur lu tax man leen élection yi foog ngeen jox ndam jox majorité opposition yéen Sénégal est-ce que xalaat ngeen tey am ngeen président de la République est-ce que xalaat ngeen yéen kan ngeen fal da ngeen fal président wala premier ministre ngeen fal xam ngeen président ngeen fal wante opposition bi suñu amee ndam incha allah le 17 novembre 2024 di ngeen soog am président de la République parce que boobaa ñun suñu taxawaay mooy di contrôler l'action gouvernementale moom di président la République dañ ko fal pour juróomi at mandat bu juróomi at boo boobaa moom fauteuil bu nag il doit remplir le fauteuil de président de la République parce que pour Sénégal amagul président de la République te ñoom ñu xamul dañ leen déggul canapé présidentiel dañ leen dañ leen dégg fauteuil présidentiel fauteuil bi nag ñu am koy jéem a xëccoo ak président loolu ñu bëgg nag mu daj biir Sénégal mbokk yi du ma guddal gis ngeen élection yi jarul xuloo jarul xeex waaye ñu mu leen doon wax démb ak bërki démb na ngeen xoolal tey taxawaayam ngeen xool lan la ci ak ak ak tamit lan la leen digoon ak fan la toll ci lu leen digoon loolu kese mooy wax ci parce que nag juróom-ñaari weer daanaka léegi mu bët at dara soppikuwul ci Sénégal dara dëkk bi gën a metti ñu gën a tar xale yi ñu gën a sonn xale yi ñu ngi ci àll bi di bëgg gaal yi di wuti yoon ni Nicaragua ak suñu yaay nag yéen xam ngeen bu baax fi may waxee xam ngeen fu ceeb bi toll xam ngeen fu courant bi toll xam ngeen fu suukar bi toll xam ngeen fu jàng bi toll xam ngeen fu euh, santé bi toll xam ngeen lépp lu xew ci dëkk moo tax dañuy joxante loxo te côté coalition sàmm sa kàddu ndax opposition mën a nekk une fois de plus une valeur alternative responsable ci assemblée nationale na ngeen partagé baar yi na ngeen gëstu baar yi na ngeen saytu baar yi te su ngeen demee ci urne bu voté na ngeen voté ngir yàlla te ngir ëllëgu Sénégal loolu la loolu la am solo ñu ngi leen di gërëm di leen di sant te ngeen jëf mbokk yi.